أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kon su ngeen déggee ayatul quran yooyu xam ne xew-xew bu mag bu rëy dellu siwaat na ngeen dégg ko ci pàkk boo xam ne bu nu ko fa déggee du doon jombe boobu pàkk mooy ban mooy njaareem ci pàkk bi ñuy wax buqaatul mubaaraka ci kër kan kër sëriñ Mor Mbay Cissé sëriñ Mor Mbay Cissé moom maam Ndiasse Cissé moom Cheikhul Khadim kon bisub alquran bi nga xam ne moom la xalifaam bu tedd bii di def muy sëriñ Abdul Ahad noo ngi ñaan suñu borom yàggal ko te wéral ko bis boobu moo dellu siwaat war a tollook tolloog le 31 décembre sëriñ bi di ci woo waa réew mi ñëpp ak waa bitim réew ak mbooleem ñi nga xam ne ay wëllërey sëñ Moor lañu ak soppe alxuraan yi sëriñ bi mi ngi leen di woo ci bis bu tedd boobu kon bala ñu caa sori dañuy jox kàddu gi eh, jawri ni kër gi sëriñ Mbay Ngiraan moom sëriñ Moor Mbay Cissé kon nu maase déglu sëriñ Mbay ahousubillahi mina seytaani rajim <clears throat> bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alamin wasalaatu wasalaamu ala al al amin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbi sabiri liwani wa tamkin asalaamu aleykum wa taala wa barakaatu bokki jullit yi nuy seetaan yëpp te ñooy bokki taalibe bokki Sénégal di biir réew mi ak bitim réew noo ngi nuyu ñëpp di siyaari ñëpp noonu ko sëñ moor Mor daan waxee rek noonu rek la bis bi dafa agsi rek muy bis bu ñu baaxoo fàttaliku sëñ moor ne du ko ñuy fàtte sax waaye alxuraan moo ne fa sàkkir fa in sikratan fa ul niin yàlla moo ne dee leen fàttaliku ndax fàttaliku day jëriñ ab jullit ñu di ko fàttaliku nag yàlla mu doon liggéeyee rek muy alxuraan ak xasiday sëriñ Tuubaa yi ak bernde loolu nag ñu yéene ko jullit ñëpp yéene ko itam mboolem doomu aadama yëpp ndax sëñ Mor sëñ Moram ñëpp kon nag ñu ngi ciy woo waa biir réew ak bitim réew bàyyi wuñu kenn bàyyi wuñu fenn bàyyi wuñu ñenn noo ngi séentu ñëpp le 31 décembre noo ngi ciy séentu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon danuy jël kàddu gi jox ko sëriñ Balla Ndiaye mi nga xam ne mooy drapeau sëñ Mor Mbaye Seye ci Kaolack. waaw sëñ Mor fa tabaarakallaahu bi ma joxee kàddu gi tefal ma ci sëñ Mbaye Ngiraan mi. nga xam ne mooy jëwriñu kër gi bu loon digal sax dama naan amatuma lu ma wax ndax li ñu waroon wax yëpp ñun taalibe yu mag yi waxan nañu ko daanaka ci ñaari kàddu xanaa liñ ciy dolli mooy ñun suñu woote mbooleem koo xam ni kii yaa ngi ci biir Sénégal bere luñ ko jullit sax nag rek boole nañ ci catholique yeeg mbooleem ku fi nekk rek te xamoon sëñ Mor ñu ngi lay oo la xamal bësam bi di ko wax itam waa bitim réew fu taalibe nekk ci àdduna ñu ngi lay oo oote bi nag day gàtt ba pare te fasaa ndax ku gis njaboot gi ni ñu toogee xam ni bi yoon jël nañ ci décision boo xam ni fa tabaarakallaa oo nañ ñëpp nag commencé ko ci président de la république wàcc ci ay ministre am wàcc ci mbooleem autorité yi nekk fii ci njaareem ak ci biir Sénégal bàyyiwuñ ci kenn ndax bés la boo xam ne bés bu màgg la ci ñun ku gis ni toogee nii ak nit ñu dégg waa daa daara ji yëpp nga xam ni bi yoon ku ci ñëw rek sa aajo dana faju ci kattanu yàlla ñaan nañ ko ci barkat Sëriñ Tuubaa allahumma salli ala sayyidina Muhammad soxna Penda Cissé moom sëñ Mor Mbaye mi ngi nekk ci jataay bi ak rakkam soxna Aminta teew fi teewaaleel fi soxna Ndey Jóob ak soxna Ndey Tuuti ak soxna Maymuuna ak soxna Ami Cheikh ak mboolem jabootu sëñ Mor gu jigéen gépp ak seeni sët kon bala maa sori tuuti dañuy jël kàddu gi jox ko soxna Penda Cissé moom sëñ mbay Mor a Cissé aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax di jëlli ci sangu-sang yi Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam di sant suñuy ñaari jur waaye tamit di wax sëñ Muntaxa Bachir Mbàkke yàlla na fi yàgg di wér di wax ni woote bi dellu siwaat na comme niñ ko waxee muy wooteb kan muy wooteb jawriñu seriñ Touba boobu di Cheikh Mor Mbaye Cissé ñu koy woote nag fii ci biir kër gi euh, waaye di ci woo ñëpp di ci woo Sénégal waaye di ci woo tamit bitim réew parce que ku neen xam na ni jëmm jooju njaaxaan naay la tëdde woon ci ñëpp macha allah donc di ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn di wax ni bésub jëmmal ko la moom en tant que jawriñu Serigne Touba waaye tamit bésub sargal ko la ndax ku ne xam na ni jaar-jaar yu am solo def na ko ci biir réew mi kon di ñaan yàlla rekk yàlla yóbbuñu ci jàmm ak salaam ku ci ne yàlla na yàlla def nga teewee ko ci jàmm ak salaam ñu ñaan saafonte jëmmal ko sargal ko macha allah di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni nag loolu lépp dañ koy def ànd ko ak suñu jawriñ ak suñu xalis muy cheikh Euh, Abdou Lahad Cissé suñu jawriñ suñu wéeruwaay suñu kilifa macha allah yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam asalaamualeykum wa rahmatullah. Euh, sëriñ Amadou Dem ak mboolem mbokk yëpp ñi ngi nekk ñun ci jataay bi kon sëñ Amadou kàddu gaa ngoogu nga woote ci mbokki donga yi yëpp. kon ñu ngi woote suñ mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo bokkoon jaar ci daara ji ñëpp waaw fu fi waaye nekk rek biir réew mi ak bitim réew dañu xam ne bés bi la 31 décembre la. nañ ko bokk teewe si ñun ñëpp fas yéene topp ci gannaaw sëñ bi def ko muy bisub alxuraan ñaan sëñ bi yàlla na ko yàgg a jiituwaat at yu yàgg yàgg yàgg yàgg waaw i nag liñ fi wax daara joo xam ne téeméer at yi tegal na ah <laughs> même cent douze ak léegi boo xoolee téeméer at yi day tegal kon li ne te béréb bu sëñ Tuubaa rëddoon ñun ñi ñu jaar fi suñuy mag ak suñuy nijaay ñëpp bokk fi jaar ñu ngi woo mbokki taaliba yëpp yëpp yëpp ku ci bokk loon jaar rek waaw boo déggee woote bi ñu ngi lay woo ci ndigal Cheikh Abdou Lahad ren daa amaat ak dolleeku ndax barab bii nga xam ne moom la sëriñ Abdou Lahad doon liggéey muy mbaar mu mag mii mu doon tabax da ko cee fas yéene waale ubbi waale incha allahu taala al karim waaye amaat leneen lu dolleeku ci bis bi nag mooy bis bi ren sëriñ bi da koo darajaale Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kon nag su fekkee télé bii dañ koo tudde Cheikh Ibra mu ñëw di ko jël ñu xam ne kon bis bi Cheikh Ibra lañ ko tudde bisam la waaye sëriñ bi tuddewi ko itam kenn ci jàmbaari sëñ moor yi doonoon jëwrinam àndoon ak moom liggéey bi muy sëriñ Malick Dieng ñooñu la sëriñ bi tudde bés bi bala noo sori tuuti sëriñ Malick moom sëriñ bashiru Cissé moom sëñ moor mi ngi nii toog toogaal fi sëti sëñ moor Mbaye Seye yëpp góor ñeek jigéen ñi kon sëñ Malick kàddu gaa ngi noonu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax ci ndigalal sëriñ Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te ci ndigalal sëriñ Abdou Lahad Cissé bu sëriñ moor Mbaye Cissé yàlla na ko fi yàlla yàggal te di joxe ndigal di woo sëti sëriñ Mor mbay Cissé yëpp ci bisu sëriñ Mor Mbaye Cissé bi fépp fu sët nekk ak fu xarit nekk ak fi am di jàmm nekk ñu ngi leen di woo bu baax a baax ci bis bu tedd bi di woowa waa daaray alxuraan yëpp ndax ku tudd sëriñ Mor Mbaye Cissé tudd alxuraan ñu woo daaray alxuraan yëpp ak fédération daayira Tidiane yi ñu ngi leen bu baax ak fédération takku liggéeyal daaray sëriñ Mor Mbaye ak fédération takku liggéey daara Serigne Bassirou Cissé yëpp ñu ngi leen di woo ci ndigalal Serigne Abdou Lahad Cissé di woo sët yëpp góor jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ ñenn asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Serigne baa ngi koy fàttali mboolem turandooy sëñ moor Mbaye Seye yëpp di wax ne taxawaay biñ ci daan taxaw ñu gën ko feddliwaat seeni laxasaay bu baax bala maa sori sëñ Mor Sourang mi nga xam ne moo fi nekk di trésor bu turandooy sëriñ Mor Mbaye Seye yëpp dana jël kàddu woote ci turu turandoo yu sëriñ Mor Mbaye Seye comme ni ko sëñ Mor ngi daan waxee rek waaw daanaka dañuy dañuy sof foofu suñ kàddu rek ñun nag suñ suñu woote ñu ngi ko jëmale ci turandoo sëñ Mor Mbaye Seye yëpp ñu nekk ci mi ak ñu ak ñu nekk ci bitim réew ndax turandoo yi am liggéey bu liggéey bu yaatu boo xam ne si moom dañuy liggéey ci màggal ci bis bi kon ñu ngi woo turandoo yëpp nañ ko daan defee at yi yëpp ñu fas yéene ko defee noonu waaw di wax ni sëñ Mor suñ képp ku ñu tuddee sëñ Mor ko doon jaay yaa fayam njëgam njëgam amoo ko njëgam amoo ko kon kon turandoo turandoo yëpp ñu ngi leen woo ci bis bi ñu fas yéene koo waajal comme ni ngi ko daan waajal at yi passé yëpp waaw di ñaan suñu borom yàlla yóbbu ñu ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp leen sant leen gërëm leen bal wax di leen bal wax di leen ñaanal suñu borom xéwlu àdduna ak àllaaxira di fàttali sama bopp di fàttali mboolem sama kóllëre sama mbokki jàngalekat yi rawati nañ ne bésub suñu sëriñ suñu xarit suñu soppe di suñu niitukaay ci kër Sëñ Tuubaa sëñ mbay Mbaye se dellu si na ñu ngi koy woote waat le 31 décembre mun ma ko wootee nag nu gën a rafetee ñi ma jëkk jëkk ci parole mi wootee waaye dina am ñu ma segg woo leen mooy sama ñi ma bokkal sëñ kër gay mii sama waajur te ay doomam am ñu jaar fii ci daara ji jànge fi maa ngi leen ciy woo ñoom ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ak fu ñu mën a nekk ci senegal ak bitim réew di beral woote samay xarit yu nekk États-Unis d'Amérique ma ci woo ku ñuy wax Ibrahima Ndiaye ak soxnaam soxna Mata Ndiaye nekk ca Rhode Island ci dëkk bu ñuy wax Providence nga xam ne ñooñu Ibrahima Ndiaye mu nekkoon na secrétaire sëñ moor waaye ba ma fa sëñ Abdou Lahad yónnee ba ma yeggee dafa mel ni boroom Tuubaa mu wàcc ci taalibe murit foofu lañ ma teg ndax fonk guñ fonk sëñ Mor kon maa ngi leen di jaajëfal ci turu sëñ bi nga xam ne sëñ bi gis na fi fonkal ngeen ko ak liggéey bu ngeen di liggéey ci daara ji mi ngi leen ci ñaanal yàlla lu ngeen man ren yàlla na ngeen man téeméeram déwén di ci woo nag ku ñuy wax Mor Talla Gueye nekk ca New York ak képp ko xam ne yaa ngi dégg sama kàddu te xàmmee ma ngay jàngale ak loo mën di jàngale luy jëriñ doomu aadama woo naa la ci bis bii nga xam ne ñun waa Kër Sëñ Mor amuñu lu may moom te dégg naa nag ci mag ñu naan nit kenn du ko xeebal bisam te ñun amuñu bis bu gën a rëy bis bii kon ñoo ngi ciy woo ñëpp di leen ci soññi di ñaan ngeen ñëw ci jàmm ñu boolu taataan am ci xéwal yi yàlla defal ñu ñu fekk ko ay déwéni déwén te kuy ñëwit nii ma def nanga ko def na nga takk sa mask na nga yor sa butéel bu ndaw bu yor gel te lii docteur yi digle yëpp nañ ci fexe matale ko di ñaan sunu borom barke sëñ moor jàngoro ju bon jii dugg ci réew mi yàlla génne ko fi te génne ko ci àdduna bi yëpp. bala noo jox kàddu sëriñ bi itam nu sant bu baax nag télé bii nga xam ne mooy Lamp Fall. nga xam ne dañuy ànd ak sëriñ bi at mu nekk ci bis bi di jël cant gi nag di ko jaarale ci sëñ Fallou Galass Syll mi nga xam ne moo ñëw jël si image yi te ñu sawar ci lool mu jàllale ko ci sëñ Ibrahima Guèye mi nga xam ne mooy directeuru tele bi jàll ci sëñ Aliou Thioune mi nga xam ne it mooy kilifa tele bi ñu ngi koy sant ci turu sëriñ bi ak turu waa daara jëpp ak turu mbooleem ahlul quran gi fi nekk yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu yéen mbokk yu tedd yi teew ci jataay bi yëpp maa ngi leen nuyu ah, tàmbalee ko ci jëwrin yi sëriñ Mbay Ngiraan ak sëriñ Balla ah, ak ci sama rakk yi soxna Penda ak soxna Ami ak sama doom yi sëñ Malick ak sëriñ Muntaxa ak jëwrin yi daara ji sëñ Mor Seck daanaka nag li ñu waroon wax lépp yéen wax ngeen ko xanaa gën a woote waat rek ginnaaw bi nu woo adduna bi yëpp woo senegal gi woo jullit ñi yëpp di ci jiital xam ne li ñu def ñu ngi koy def ci ndigalul kilifa ak yoonu murid yëpp muy Cheikh Mamadou Mountakha ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi lu yàgg ak sama sëriñ Cheikh sëriñ Sidi moo Cheikh Abdoul Ahad si ndigal lañ ko def ak ci njabootu sëriñ Touba gi yëpp ñu ngi woo ñëpp ni mu ko waxee tamit sëriñ Moussa Gueye ñu ngi koy siyaar moom itam suñu waajur la ah, di suñu kilifa yëgaloon nañ ko ko di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ah ginnaaw loolu dinaa am ñu ma tudd du mën a ñàkk ndax comme sëñ Cheikh mii ni mu ko waxee woon bu dee ci Amérique sëñ Ibrahima Ndiaye ñu ngi ko yëgal ndax jëwrin la ak soxna soxnaam soxna Mati Ndiaye maa ngi ko yëgal tim ah, Basirou Ndiaye sunu goro la ak Abdoulahi Ndiaye ak soxna Khady Ndiaye ak Omar Gueye ah, di ko yëgal moor Gueye ak Ibou Seck bu dee ci Italie ñu ngi ko yëgal sëñ Xaadim Gumba la ah di jëwrin ju baax ku ñuy jàppale ak sunu rak sëñ Cheikh Mbaye Cissé ak sunu doom sëñ Moustapha ak sëñ ngeen sëñ ngeen ca France waaw ñu ngi ko ñu ngi leen ko yëgal bàyyiwuñu kenn bu dee ci Belgique ñu ngi ko yëgal Moustapha Amar ak Moustapha Fall sëriñ Mor ñu ngi koy siyaare sëñ Mor Mbay ak i rakam sëñ Fallou ñu ngi leen koy yëgal boo jëboon si bàyyiwuñu kenn senegal gi yëpp daal ñu ngi leen di woo waa kër Baye Mor Ndiaye Paku Lambaay ñu ngi ko yëgal sëriñ Moustapha Kebe mi nga xam doom la ci Baye Ndiouga Kébé ñu ngi ko yëgal di suñu wëllëre ak baayam Baye Ousmane Kébé ñoom ñëpp ñu ngi leen ko yëgal waaw moom daal bàyyiwunu kenn bàyyiwunu kenn ñu ngi ko yëgal toroxo yëpp ak sëñ daara yëpp ak ñuy jàngale ñëpp waaw ku lim nag juum kun tëdd kun tuddul ku ne daal yaa ngi ci mbir mi daal ñëpp ko bokk waaw mbirum yàlla la mbirum sëñ Tuubaa la mbirum alxuraan la ko ne am nga ci cër waaw yàlla na ci yàlla yóbbu te am ci ngërëmal ñu ngi ciy wut rek def ko at yu baree bari gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp jërë ngeen jëf war a tolloog le 31 décembre alxames lay tollool incha allahu taala al karim euh, ñu fas yéene bu ñu xëyee euh, ubbi mbaar mu mag mii nga xam ne moom la sëriñ bi doon liggéey ubbee ko nag alquran wàcce fi alxuraan ak xasida bu ko defee it def ay bernde ni ko niñ ko daan defee naka noonu itam waxtu cérémonie officielle bi itam soppikuut waxtu wiñ ko daan def la ak barab biñ ko daan defee sëriñ baa ngi koy yëgal Euh, njiitu réew mi euh, président Macky Sall ak mboolem gouvernement bépp di ko yëgal itam mbooleem autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñëpp sëriñ Dame Diop di wólëre kër gi ministère sëriñ baa nga koy yégal bu baax di ko yëgal itam euh, maire maireu dëkk bi Malick Fall di ko yëgal itam Moustapha Guèye di ko yëgal docteur Soumaré di ko yëgal mbooleem ñi fi nekk soxna Fat Diané ak mbooleem ak ak saer di ko yëgal mbooleem ñi nga xam ne ay politiciens lañu nekk fi ak mboolem autorités yi di ko yëgal gouverneur bi di ko yëgal préfet di koy di koy yëgal soxna Aminata Tall di ko yëgal mbooleem waa Njaarim gépp naka noonu it ëtt yi nga xam ne it ñooy atti Serigne Touba yi ak ëtti lislaam yi nekk ci biir njaarim yëpp it sëriñ baa ngi leen di fàttali bis bi le 31 décembre incha allahu taala al karim yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutun wala tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahu alazim